début di leen doon bu ku nekk fi nag ñu wàcc yoon loolu ci yoon waaye leneen li ma bëgg a wax lu gën am solo sax lii mooy suñu diine lislaam ci Sénégal wax bu ñuy wax Yoof ñu dëkk maam di maamu bu ñuy wax Touba ñu dëkk suñ Touba teewal ñu ne Alaaji Malick Ah, Cheikh Oumar Fouti wax ngeen ko ak geneen ak geneen muy islam boo xam ne lu muy dugg fii ci réew mi di Sénégal ëpp na junni ak ak lu topp près de mille cent années yoo xam ne l'islam muy dugg Sénégal ñu koy doxal ci ni ñu koy doxal ba tey jii kon islam boobu war nañ ko sàmm ndax mooy l'islam bi ñu taamu mooy l'islam bi ñu xam te mooy l'islam bi ñu jig mooy ñu indi leneen di ko senegal Sénégalais

loolu nag daf fi am loo xam ne euh, yaakaar naa wàllu taalibe yi nag ñoom ñooy sàmm aussi seen diine sàmm seen ngëm-ngëm li si des itam wàllu sëriñ si la ñoom it ñu sàmm li nga xam ne moom la leen yàlla dënk euh, ci di waxtaan ci njaboot parce que ci waxtaan la ak ci xam-xam euh, leneen li moom état bi li ma ko waxee rek ci wàll woowu lépp lu fi indi ay xalaat yu bees yu ñu war a doxalee diine moom ñun dinañ jàmmarloo ak loolu ci wàllu état donc loolu nag di ngeen ni mu yàqee réew ñu wër yàq ko yàqee euh, loolu dafa am taxawaay boo xam ne ñun duñ si mos a jógee incha allah li ci des nag mooy di leen félicité ci bés bu màgg bi di bés bu ñaaw